Amadou Ba est-ce que nekkul ab victime euh, est-ce que du nekk ab victime ci euh, ñëw ki nga xam ne rek moom mooy Macky Sall parce que jamono ji euh, mbir yi mu ngi commencé compliqué ci moom Abdoulaye Dieye gis nañu investiroon nañ ko ci liste jàmm ak njariñ démb démissionné na ndax lan dafa jot ab pression ou pas l'essentiel mooy que <laughs> démission bi jeexal nañu bëri ki nga xam ne moom mooy Amadou Sall aussi nekk rakk ci euh, Macky Sall moom gis nañ moo ne fidélité am euh, ci Aliou Sall autant pour euh, ci ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba tey bu ñu nee ba demam wala ñiy laam-laamee naan mu ngi bëgg a génn ak du génn est-ce que du nekk victime retouru Macky moom Aliou Sall waaw xam nga moom lu yàggul dara. Mhm. invité woon nañ ko euh, TFM moom Alioune Sall. Mhm. mu wax ne bàyyi na APR su ma juumul parce que magam moom moom moo nekkoon. Mhm, di di di di bàyyi. foog na ni dootul ñëwaat. moo taxoon mu ne day dem jàppale ji Amadou Ba kon man jàpp naa ne kàddoom bu dee gor la dëgg rëcc na ko ba noppi parce que xalaatul woon peut-être que ni Macky dina dellusiwaat ci biir réew mi mais gis nga lii nii ndeyaa journal yi tey waruñu ko woon fa bind parce que sénégalais nañu bi lan la affaiblir euh, ki nga xamante ne moo di euh, Amadou Ba parce que xam nañ ni Macky Sall su ñëwee rek am na lu bëri loo xamante ne ni mën na wàññeeku ci peut-être bu fekkoon ay pourcentage la yu ñu mhm. war a mën a lim mën na jóge ci moom delluwaat ci ki xamante ne nii moom moo nekkoon tenooram ci ci ci ci politique. léegi nag kantaa nag ñoom Ablaye Dieye ñiy wax ne kii wëtu ñoo kii ñu mel. ñooñu sax. wax dëgg yàlla am li ma doon wax masali rek am nañ lu leen doy parce que ñun ñëpp ñoo bokk Thiès xam nañ doxalee li nga xamante ne nii ñun <laughs> ñoom ñoom ñoom ko fay doxalee bu leen gisul mhm. ñu ngi dégg li nga xam ne ni moom moom moo ci nekk léegi nag euh, Amadou Ba moom man yaakaar naa ne xam na boppam parce que nit su fekkee ni yow nit ki da nga nekkoon ak moom mu jël tabb la def la ci kaw dëgg la ñu dem ba ci biir ñi nga xam ne nii ñoom ñoo taxawoon jiiñ la lenn li ñu dégg ay éconi dañu fas yéene ànd def intercoalition mm. moom mooy yey teel a daw kii nu mu tuddati tax balaa lu ñuy wax naan teel a daw sa fas bu baaxee yi da ngay da ngay teel a daw ca ba ngay ami tànk waaw kay la olof di wax teel a daw ca ba ngay ami tànk parce que bu ñu àndoon <laughs> yeneen lay jur te bu boobaa mën na gën a wàññi dooleem moom Amadou Ba parce que mënuloo xëy yow ay nit jiiñ la dara ne dangaa corrompre ay euh, kii juge keroog rek bi ñu fi mujjee maa ngi koy wax mhm. nga tëb bëgg xëy ànd ak ñoom loolu dafay mel ni genre li sénégalais yi doon jort que ni gars yi dañu bëgg a tuur lëndam dañu bëgg a pousse élection yeeg yi ni mhm. mel yooyu yëpp dafa doon amaat confirmation que ni ñii dañu bëggoon a tëgg linjaan sénégalais yi te sénégalais yi léegi dañoo yeewu macha allah. Mhm. xel mi ñu yor kenn mënatul la na nax ci leen léegi nag loolu su amee yow ñuy ñoom ñoo ngay def booloo pour ñu doon xastante démb ak ŋàññante booloo yow nga bëgg ñëw dolli siwaat ci seen biir même ñee bu ñu doon xastante sàkk jiñaa ak mm. ak waxalante lu ñaaw yow lañu la waxal moo gën a yées téeméeri junni yoon parce que loolu accusation la yoo xamante ne ni non seulement waruñu ko woon a bàyyi sax muy jàllee noonu mais Sénégal li ñuy wax rek dañoo gaaw a fàtte déjà mm. fàtte nañ li jëm ci problème boobu te loolu warul woon a nekk loo xamante ne nii dañuy gas ba mu xóot suul mm-hmm. léegi nag euh, affaire département yi ñuy wax ak yi ni ñoom la rek ñoo xam El Malick wax na ko démb maa ngi naan xanaa El Malick ba ma koy déglu saa njóogu la déglu. <laughs> dinañ ci ñëw loolu maa jigéen boo ko mënee euh, xam naa xam naa dinañ ci ñëw mooy li muy wax affaire yi moom léegi ñaari bulletin moom moo am nañu nekk quarante et une quelque ci ci ay liste mais ñaar kase moo fi nekk daa déglu saa daa déglu saa déglu saa système ak anti système moom wax na ko démb anti système bi ak opposition bi mm-hmm. affaire yi moom ñoom nañu rayante seen biir ñoom ñoo xam ñun suñu yoon nekk ci mais de toute sénégalais yi li ñu yor ak li ñu yitteel mooy que ni réew mu defaru te nag tant que nag ñi ngi gis mhm. ni gars yi nit ñi digoon ñoo ngi ci mm, tànk yooyu dinañ wéy di leen gunge ci li nga xamante ni ñoom ñoo ci ne ñun nag ñàkk ñu fayda ah. Ah, bis bu ñu demee ba gis loo xamante ne nii lañ ñu digoon dafa wuute ak li ñuy uh, def bu boobaa di nga gisaat ñun ñi toogoon di leen défendre rek di leen wax jàppale leen leen ñu digee ñooy toogaat fii xas leen wala ñu wax leen lu nga xamante ne nii uh, bokkut ak ak li nga xamante ne nii moom lañ ñu promettre comme ni ñu ko defee ci nguuru Macky Sall mhm. dégg naa bi muy doog ñëw booba ñun gaa nekk suñu xel nekk nekkagul sax ci wax ci ay waxu politique gars yi mayoon nañ ko état de grâce mu mu continuer mais dem nga ba en un moment donné nga gis comportement bi mu amee woon moo taxoon gars yi retourner di ko dóor ay pic te nii nii espérons que nag wax fa dëgg yàlla am nañ yaakaar ci ñoom yàlla bu yàlla tas yaakaar mm-hmm. yàlla baax na daal li ci kanam raw li bët mais nag waaye waa APR rek takku walloog sàmm sa kàddoog jeeg xoma nan <laughs> jàmm ak njëriñ ak seen i problème on s'en fout voilà <laughs> euh, dafa mel ni que ni Amadou Ba comme ni ñu koy waxee ab euh, nagu seeraas lay bëgg a doon wala mu doon victime eh, ci ñëwu Macky sàll ndax gis nañ ni Macky ñëwagul sax waaye am na ay retombées yoo xam ne eh, mi ngi dal ci kawam Abdoulaye Dièye mi démissionné Aliou Sall eh, mi a jël porte bi voilà nan nga jàngati situation bi nga xam ni mi ngi dal ci kaw Amadou Ba jamono ci waaw man de Macky Sall moom damaa xam ne objectif am ci élection yi atteindre na ko xam sàll pour man objectif am ci élection yi nekk dafa war a ñëw pour am ay député yu bari. Mhm. man ma loolu. Ah, lan mooy objectif am waaw moo nekkoon xañ amadu Ba comme mhm. d'habitude. Ah. ni mu ko ko ni mu ni mu bañee woon mu gagné élection présidentielle yi pour man noonu la Macky Sall taxawaatee pour Amadou Ba bañ am. député yu ah, bari ah waaw li ko Amadou Ba def moo garaaw.

waaw da koo déshabillé da koo déshabillé te boobu te mu ngi topp ci ginnaaw am de naan ko monsieur le président monsieur le président. mais Macky Sall moom xam ne Amadou Ba subbi na ko. te histoire boobu dinañ dem ba après Sénégal denc gi dañ am na lu ñu ci xam nag wax dëgg fa yàlla am lu ñu ci xam. Hmm. waaw am na lu ñu ci xam. Euh, objectif am moom mm-hmm. Ba. objectif am nekkul wut ay député yu bari baare Amadou Ba mooy objectif te dafa mel ni. Mm-hmm. mu ngi koy réussir moo tax ma ne objectif am na ko. Mm-hmm. ndax. dañu gis am Amadou Ba di xëcc waa APR comme pas possible. waaw waaw waaw. comme pas possible. gaa mm-hmm. yëpp di daw ñëpp di dem ñëpp di dem ñëpp di dem. Macky Sall pour arrêter sañee boobu noonu. moo tax mu ne moom mooy tëdd si man damaa bokk ci Sénégalais yi nga xam ne dama gëm ne Macky Sall du ñëw fii di campagne. man noonu laa gëm. kon kuy campagne. waaw dara terewu ko ko dara terewu ko ko bu ko neexoon tey bu dugg si ci réew am benn problème. Mm-hmm. waaye damaa gëm ne man. Macky Sall dafa bëgg boppam bëgg boppam boo xam ne du ñëw fii di campagne mënul laa gëm waaw léegi nag mën naa jub parce que xalaat rek la waaw léegi nag figurer ci list yi comme ni waa PDS yi euh, defoon ak taqadeeru Ablaye Wade ba ci élection législative yi mhm. pour man loolu dafay génn ci liste yi pour arrêter sañe bi mais moom moom Macky Sall moo la gën a xam ne élection yi nii amu ci benn chance pour am ci nombre de dé waxuma la majorité de benn nombre de député bi ndax moom Macky Sall li tax mu dem finalement def amnistie génne président Diomaye premier Ousmane Sonko dafa xamoon ne bu ko deful une semaine après l'État ba aller en prison génnee ñooñu noonu te booba moom defetam la dafa bëggoon sauver leur xam nga bu sa kër di lakk di lakk di lakk ba lépp boy ah. maanaam la nga mën a génnee rek génne dafa dem ba kër gi jaf la mu mën na génn la mu mën ko. ci semaine bu gàtt mu def. amnistie génne Sonko Diomaye ñooñu ñëw taxaw. finalement li ñu naan waa li ñu bëgg a andi ne y' a un protocole alors que amul mhm. benn protocole. ndax jamono boobu Macky Sall amatul woon choix. te il a dit nu muy def ni mu xamee woon ne élection yooyu noonu c' était déjà perdu Macky Sall noonu la xamee élection yi c' est déjà perdu. léegi nag day sauver patrimoine am muy te li mu koy sauver mooy jéem a barrer la route Amadou Ba ndax moom image am na barrer la route Ba un an ñu ne la ku mel ni Amy Ndiaye ñii bi dina bàyyi Macky Sall dama ànd ak Amadou Ba di nga gëm. déedéet du ma ko gëm. est gis ngeen liste Amadou Ba bi. liste liste Ba bi. liste bu ñu dindi woon am bu ñu defoon photo Macky Sall nga ne APR la. ak Madiambal Diagne waaye. non déggoo li ma la wax ñoom liste liiral list bi. da ngay liir list bi bari na bari na que. mais écoutez y' a Victorine Ndeye bi nga xam ne ministre la su Macky yàgg na. Amadou Cheikh Omar Anne. Euh, dama waa parti socialiste yi ñoom Bounama Yaya Diallo ñoom Cheikh sec Cheikh Seck nga xam ne lu mu yekkul président Ousmane Sonko fii assemblée amut. bu ñu nee koy hmm. Adji Sarr Adji mel ni koy daanu crise di yuuxu kooku mooy Cheikh Seck. <laughs> kii ñoom ñëpp Macky Sall la violette. ak kii ak ki doon wax ne bu leen wax Amadou Ba wax leen yi non bari nañu c' ñooñu ñoo nekk ci liste jàppale leen ma ko. démb nag voilà démb gis naa <laughs> démb gis naa comment ça s' appelle euh, benn bon un certain mbay mu ne jërbaatu Moustapha Niass la. Mhm. mu ne Moustapha Niass nee na buñ voté Amadou Ba alimaane alimaane bi ñu investir. ñooro voilà mbay peex merci beaucoup voilà du mbay peex la mbay la. sant non non mbay peex mi nga wax sànq naan bu leen wax Amadou Ba. bu mbay bu ñu voté alimaane ñooro ndax ni dafay sàmm kàddu dëgg la am du dëgg bon. yaakaar naa xibaar bu wér la ndax bi ma gisee réplique waa Amadou Ba rek laa xam ne xibaar bi xibaar bu wér la. Mhm. gis na daal ñoom ñaar dañuy rayante ba jeex duñu agsi ci mën nañu am sax mën na am sax duñu agsi ci ci ci bëre bi. Mhm. ñoom ñaar ñi ngi régler seen problème fi mu ne en interne. en interne wala sur la place publique xaw ma en tout cas Macky Sall objectif am moo nekkoon baare Amadou Ba Ba nag. Ah, aussi mu ngi def lu mu mën ndax pour man euh, Macky Sall coup d'état bi ko Amadou Ba def ci présidentielle bi moom lay fay fi mu toll nii. mu lay fayu seen xeex jeexagut mais Macky Sall xelam nekkut ci ñëw fii pour wut ay député moom xam na ne affaire bi jeex. ma yaakaar ne Macky immunité lay wër. lu koy dee pour yow Macky Sall bu ñu ko faral nii député dina ñëw ci assemblée bi toog. non ku xalaat loolu. ah démb rek El na ko yow jox nañu ko léegi te pourtant war na ko nekk yow président assemblée nationale Modou nga baal ma nekk mhm. ministre nekk premier ministre yàlla fal la nga nekk président pendant douze ans <laughs> nga xëy xëy. nga dellu ginnaaw weesuwul nga ñëwaat ne da ngay doon député loolu tamit Macky Sall nekk député soxlawul immunité mhm. Macky li am moo gën a fort immunité mhm. Macky Sall ancien président la. ah mënoo ko poursuivre lu dul. Euh, euh, comment ça trahison. Mhm. léegi nag lenn mun naa nekk ah, ñoom il faut ñu jéem a booloo xam naa discours bu leen di tenir boo leen booloowul bu gars yi amee majorité na taxaw te loolu dinañ ñëw peut-être seen élément mais li ma bëgg a wax rek mooy Macky Sall bëggul nekk député xam nga mooy tête de national euh, nationale c'est mm. sûr que day jàll. bu nekkee benn nit ma fa jàll day jàll moom lay doon mais day joxe mandat bi soxlawu ko. tu penses que Macky dina ñëw fi toog ci biir kii bi ñu naan député la non. <laughs> Amadou Ba la bëgg a baare. te mu ngi koy réussir fi mu toll nii ndax depuis ñu ne moom mooy candidat bi yaa ngi gis ñenn ñi naan non ñun mu mënuñoo def face Macky Sall ñii ñu ngi naan nii ñu ngi naan ñu ngi malgré pëcc xool lay andi sabar gu tas lay doon après bu pare borom sabar yi dañuy jaar ne ñu doon jiyar seen jaar ne ñuy jaar ne noonu rek lay mujjee. ok